FPCW, Fédération des présidents groupe WhatsApp, aujourd'hui, vendredi, le 3 mars 2023, dans l'éphéméride du Sénégal, le 3 mars 1963, 60 ans après organisation du premier référendum au Sénégal, ñu ne bis na tey ñetti mois de mars 1963 Bob ak léegi di juróom-benn fukki at ci Sénégal n'a a organisé un référendum foofu la le dire, le Sénégal 200 après son indépendance le Sénégal se confronte une crise politique au sommet de l'État. Décembre 1962, le bras de fer entre Léopold Sédar Senghor et son compère Mamadou Dia va aboutir à l'arrestation du dernier nommé, incarcéré plus tard le délit du coup temps. trois mois après le 3 mars 1963, un référendum organisé pour mettre fin au régime bicéphale et, mettre, et permettre au président du peuple d'avoir contrôlé absolu sur les institutions du Sénégal pour mise en écart de Mamadou Dia à la suite des événements du 17 décembre 1962 xam ngeen tay ji jii buñ sukkandikoo ci xibaar yi juróom-benn fukki at booba ak léegi ci la Sénégal njëkk a organisé ay référendum ci réewum Sénégal ñëpp xam na nag ginnaaw ñaari at bi ñu amee indépendance Sénégal dafa amoon crise politique bu metti boo xam ne moo fa amoon ci diggante Léopold Sédar Senghor ak kii di euh, président Mamadou Dia Mamadou Dia nag xam ngeen ne moom moo nekkoon président du conseil président du conseil boobu. président Léopold Sédar Senghor tamit jiite woon réew mi en tant que président de la république waaye nag lu ëppoon ci institution yi kii di Mamadou Dia moom moo ko doon contrôler noonu la état bi doon doxee ci yooyu jamono ba tax na daal jamono yi 1962 yooyu la ñu doon tuumaal ne euh, kii di Mamadou ja dafa bëggoon a def benn coup d'état euh, ci Sénégal doon ko jaarale nag ca assemblée nationale ba ci loolu la ko Léopold Sédar Senghor daal di teg loxo teg ko loxo daal di koy tëj kaso. yàgg na sax ca kaso Kédougou boobu mu nekk président Mamadou Dia nag ci fàttali mi ngi gën a jamono 1910 bi mu génn àdduna am na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett moom président Mamadou Dia moomu lee ci biir lool nag le 3 mars 1963 ni ki tey jii ci leen organisé woon référendum boobu lee ngir di jeexal ni euh, nga xam ne moom la président conseil di euh, contrôler lii di institution yi Léopold Sédar Senghor nag daal di nag yore institution yépp ci loxoom ñu fàtt rek nekkoon daanaka njiitum réew yàgg na. tous rek di bañ koo diir mbagg ci kaw euh, ak nguuram ci loolu nag la daal di euh, sampe lii di premier ministre euh, kii di président Abdou Diouf mi nga xam ne nekkoon na fi loolu mooy xeexoo bi nga xam ne amoon na ci 1963 ci fàttali tamit référendum boobule président Léopold Sédar Senghor daf ko gagné largement ndax wii bi gagné woon na 99 pour cent maanaam daal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent yépp danoo d'accord ci li Léopold Sédar Senghor bëggoon muy ñu daal di. et jëlee président conseil ci kaw euh, bopp nguur gi ngir muy diriger institution yi noonu la mujj daal doxale ngir mën a contrôler nguur gi moom kii di euh, Léopold Sédar Senghor waaye ci biir loolu tamit xam ngeen ne référendum amaat na ci Sénégal euh, ci 1970 mois de février amaat na Sénégal 2001 ci mois de janvier amaat na Sénégal encore mois de mars 2016 maanaam ñeenti yoon daal lii di référendum am na ko ci biir réewum Sénégal. mu nekk taarix boo xam ne dootul ko fàtteeti mukk nii la Sénégal daan doxee démb euh, kon tey jii ñu mën cee jàng lu bari par rapport ak fii actualité bi toll ci wàllum politique ngir wéy di topp FPCW seen mbokk seen xarit Babacar Lo dañ jox dajee ba demee incha allah.